moom dafa wax nii c'est comme si la nation sénégalaise est est est elle, elle est complète elle elle est tout y plus rien à faire c'est pas une œuvre euh, euh, c'est une œuvre à parfaire parce que y a des équilibres qu'il faut respecter c'est important dans ce pays-là muy Sénégal dafa am équilibre xam dañu ko respecter soo ko respecté wul mais tu seras obligé de revenir sur des fondamentaux xam nga sénégalais ñu ngi wax commencé di junj di nii. le président Bassirou Diomaye Faye ba ñu ko falee ba léegi déggoo mu ne mu mu mu mu dem seeti sëriñ si déggoo mu dem euh, nuyu. nangam yan Sénégalais ñoo non non toi tu es journaliste tu tu tu te tu te renseignes et c'est ça qui est vrai parce que ce qu'on a remarqué effectivement depuis ba ñu ko falee ba léegi. ma ma defal nak rek. yaa ngi génn de. non génnu ma. yaa ngi génn non génnu ma non non tu cherches. non non non ce sont des équilibres xam nga les équilibres yaa ngi génne la petite bête un peu partout. mais bien sûr sama rôle alors que dañu nekkoon ci benn logique. non dañu nekkoon ci benn logique non oui mais sama rôle c'est non li ma wax rek le professeur a dit tout à l'heure parler de déconstruction mais moi je suis pas d'accord xam nga la rupture man fu may xaaree mooy am na lu mu wax am solo c'est moins les paroles mais c'est plus les actes parce que rupture rupture rupture wax ko neex na. mais liggéey ko pour sénégalais xam ne rupture am na loolu loolu mooy mbir mi vous avez parlé de l'Assemblée nationale. déconstruction mooy c'est vrai que boobu moom du la arrange. non non vous avez construit. non mais parce que mais si tu prends le le le projet bu ma gënoon tudd si prends le projet de de de de de de Pastef fan nga dégg ñu ne eh, ñu wax la rupture il y a combien de combien de fois ils ont cité le mot renforcé il y a combien fois ils ont cité le mot augmenté lan la ñuy renforcer lan la ñuy augmenté xanaa bi bi bi ñu perte nguur bi ñun les socialistes mais Abdou Abdoulaye dafa ñëw mais dafa indi sa touche continuer liggéey bi ak moom nu mu ko gisee ak programme bi mu fal. parce que Abdoulaye dafa bëggoon ñëw indi lu bees soppi la woote woon. ngeen ñëw rax ko. dugg ba xàmmeetuñu qui est socialiste qui est libéral ñan yi ñoo fexe ba duggaat ci nguuru. Abdoulaye Wade mais moi j'ai nga wax. ah non mais non ñun le parti mais ñaata ñoo jógee ci yéen. mais ñan. mais s'il y a des Bassène, personnes ba seen président groupe parlementaire Abdourahmane il est allé mais ça c'est individuellement xam nga xam nga lim daanaka parti social non c'est individuel moi je parle du parti social moi je parle pas de de ou telle personne parce que réew du doxe noonu di nga di nga di nga luy wax nii aujourd'hui par rapport à l'Assemblée nationale li fa ne mais ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale fi ñuy jaar parce que même pour même pour la HCCT pour jënd ko c'est une loi constitutionnelle non dafa nànk dama expliqué. xam nga dama la dafa nànk rek si la Yewwi est d'accord non damay expliqué le PDS wallu ñëw jàppale leen. mais on verra parce que loolu loolu. c'est yaa ni fu ñu jaar moo tax loolu d'accord mais mais je pose je fais une réflexion. parce que il faut pas que ñu xam ne waaw d'accord je fais une réflexion xam nga sànq tu as parlé de changer la constitution mais pourquoi changer la constitution. on va pas se pour changer la constitution. mais par voie référendaire. waaw ouais, mais mais je veux dire c'est quoi mais nous nous avons une bonne constitution. oui mais bu fekkee ñii dañu am lu ñu bëgg a te lu ñu bëgg a indi. mais lan la ñu bëgg a indi ko teg ci kaw xam nga li fi nekk. li fi nekk Mamadou Mboye non xam nga ni lii du war fay jóge. non wax ma loolu de. te xam nañu ne lii yàgg na fi indiwul dara lu baax ci réew mi tamit. Birama waxuma loolu dama ne. du kee waxuma lii non dama ne lii wax ma lii war a fa jóge ñoom la ñu fal ñoom on les regarde à l'œuvre xam nga nous avons une bonne constitution. waaw ah qu'on a est-ce qu'il prévoit pas mieux. mais mais on a une bonne constitution très bonne constitution même je dirais mais nag ñoom su nekkee dañu bëgg a changer constitution bi yow yaa wax sa xalaat xam nga waxuñu ñoom dañuy changer constitution. waaw waxuñu ko de. waaw waaw kon jeex na donc il faut pas qu'on discute sur